dal leen ak jàmm mbokki internet yi safo di seetaan Buzz M xibaar yi nga xam ne nag jotoon naa am démb si lañ leen dikkal nag daal leen koy dënkal gannaaw ba nga xam ne nag kii di Cheikh Tidiane Dièye daal dinay jàll validé moom mi nga xam ne nag mën nañ nag kii di Ousmane Sonko la àndal ak ki nga xam ne nag moo di Boubacar Camara moom it daal dinay jàll moom it eh, mën nañ ne président Ousmane Sonko la àndal ak ki nga xam ne moo di Déthié Fall mu nekk nag nouvelle yu neex a neex yoo xam ne patriotes yi daal di nañ koy jot ndax ñoom ñi ñëpp kii di président Ousmane Sonko lañu ñu àndal te ñoom ñett ñëpp seen candidature daal dinay leer nañ démb bi nga xamee ne nag def nañ li nga xam ne moo di Euh, tirage au sort yi bërki démb démb ñu doon nag saytu parrainage yi nga xam ne nag ñi war a jàll dinañ jàll ñoom ñii nag seen ak jàll leer na nañ muy Boubacar Camara mi nga xam ne nag jot nañoo sax gàntal six mil et quelque si ay électeurs yi nga xam ne nag parrainer woon nañ ko waaye nag euh, mujj nañ ko valider le cinquante trois mille personnes et quelques yoo xam ne nag euh, valider nañ ko ko moom mii di Boubacar Camara manda teram bi sax daal di koy wax moom président Ousmane Sonko amoon ay gàllankoor ndax kat euh, kii di ab mandataire am di Clédor Ciré Ly maître Ciré Clédor Ly nag jotul woon a dem fële sa conseil constitutionnel. lu ni mel nag moo waral ba moom mi ab dossier dañ koo lem daal di tege na le nag il faut nag ñu xaar ap mandataire di maître Ciré Clédor Ly ngir ñu mëna nak xam ay mbiram man ko saytu nak information yi ñu jot moy fii ba le 5 dinañ mëna xol ay mbiram mo mi di président Ousmane Sonko nga xam ne nag candidat tiram mo gëna ñor ñu bare bare bare bare ci sénégalais yi ndax kat nak mom dañu am ci mom yaakar ki nga xam ne di Cheikh Tidiane Dièye momit ak eh, parrainage tamit eh, leer na nañ validé nan ko daal dinay jàll ak ki nga xam ne nag moo di Déthié Fall mi nga xam ne tamit moom it eh, daal dinay jàll mu nekk coalition yewee Askan Wi ñoom ñi nga xam ne nag àndoon nañ ñu booloo mën nañ ne seen parrainage leer na nañ mbirum euh, maître Ciré Clédor li sax nekk mandataire bu Ousmane Sonko bi ñu doon wax que ne nag malaise moo ko jàpp ba tax mënuñu woon a dem fale sa conseil constitutionnel boobee information sax kat nag am na yeneen yu daal di si jip di ñuy wax que ne nag dara jotu ko woon moom mii di maître Ciré Clédor Ly ma nga woon fële eh, sa Cap Manuel nak eh, seeti won ki di président Ousmane Sonko jot nañ fa yaatal sax ba daf fo waxtaan yu ama amam solo ba moom Maître kilo Clédor Ly daal di genn fofé eh, sa Cap Manuel wat ci mom mi di président Ousmane Sonko ñu yaatal fa lu ama ama amam solo kon bobé xibaar ñu doon wax dafa amé li di malaise bu ñu diko nak ci yenen xibaar yu gën mom fës moom di Maître kilo do li dara jotu ko ma ngi woon ci jàmm bu baax a baax bi nga xam ne nag mbir yi ma ngay dox fële sa conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag dañuy continuer ba léegi boobee liggéey bala cinq daal di gën a saytu pare naa si ñu ci mel ni kii di Pape Djibril Fall ak yeneen i candidat yu féete ci opposition bi ñu ci bari seen i parrainage xooloo kun ko moom Pape Djibril Fall sax ñu ngi wax ka ne nag fileeg mardi dinan xool ay mbiram suba la lundi incha allah ñoom Pape Djibril Fall ay mbiram dinañ ko xool mardi incha allah ba xam ne ay parrainage jàll na ni mu war a jàllee am déet am na ay candidat na yu si bare bari yoo xam ne na nag jot nañ leen a gàntal kii di maître El moom ay parrainage am moom it jot naa jàll kon kii di maître El Hadj Diouf nan ko mu nekk nag ay information yu nu jotoon a tënk incha allah dinañ leen toppal mbir yi gën leen ko faram fàccal ba mu gën a leer bu leen fàtte di abonné di like vidéo yi di partager jaa ngeen jëf